ñu axlu fii la la lay fàttalil ak euh, ban souvenir nga ci am. waaw Aïcha da ngaa laal fu grand est-ce que tu en parler. waaw ouais. voudrais vraiment qu'on en parle. j'ai eu des amis yoo xam ne axlu bii en fait ku nekkoon na ku doon doog a démarrer rajo ah puis déjà c'est un animateur bu nekk soxna ak mm-hmm. donc il faisait partie de moo doon wax yaa koy yaa yaay soos yaay quelque chose comme ça donc axlu bii c'était fu animateurs yi doon daje. Mhm. donc du coup euh, quand quand on était boo nekkee animateur bu bees il fallait nga dem di leen jéem a fréquenter ñoom ñoo lay woo ñooy maye dédicace ñooy ñaan dédicace donc ñoom ñoo la doon defal promotion ma dem ba miin nag waa lu fii ndeysaan euh, bëri na si nag ñu ci décédé Eva mbay macha allah elle était tout le temps là-bas. Mhm. Bokum Taal on se connaissait foofu la doon nekk moom tamit léegi mu dafa voyagé. menace ba dem si yàlla si aussi fa lañ xamante mais surtout mon ami di tax ma jooy. Moussa. Moussa Gueye. déjà xaw ma ko la wax loolu. <laughs> c'était mon grand frère. Moussa Gueye c'était mon je pense que depuis qu'il est décédé sa amatuma presque fréquentation c'était mon ami Moussa Gueye nit bu bari sutura nit bu baax koo xam ne boo boo rayoon nit ci biir néegam boobu boo ko waxul kenn du ko wax. kenn du ko dégg Moussa Gueye yàlla na xippee àjjana c'était mon ami Moussa. c'était ton ami. waaw ah, mon ami. Euh, lan lan ngay fàttaliku ci yéen ñaar ci seen ay discussion ci seen ay toogaay seen ay jotaay. Moussa dañu rusante woon Moussa daf ma rusoo ma rus ko mais xam nga nit parfois di ngeen di nekk tout le temps te même c'est foofu foofu moo doon këram ak lu bii. waay moo doon këram. donc on était tout le temps là-bas di nga dem ba dootoo xamati yéen exactement ban waxtaan ngeen war a mais Moussa dina la yedd. Moussa Gueye dina la déglu Moussa Gueye dina la suturaal ak lu mën a xew gis nga àdduna du alal y de des relations yoo xam ne du alal. Mm-hmm. Moussa Gueye quand bi mu bi mu feebaree lay doog a rendre compte sax que moi j'étais vraiment attaché à cette personne là donc yàlla suturaal na ma ba ma gunge ko ànd ak moom ba mu jóg fi a été très dur pour moi parce que je me suis rendu compte de beaucoup de Euh, je me suis rendu compte de beaucoup de choses aussi euh, permis de ma yeewuwaat bu baax a baax ci àdduna mais ça m'a permis aussi ma xaw a ma xaw a calculer waat bu baax baax fu may dugg fu may teg sama tànk parce que je ne pense pas que dinaa mën a supporter waat lu mel noonu